aleykum mbokki taalib yëpp waaw kon ñu ngi fii ci Baye Fall gis nañ ko ndigal li sëñ bi joxee ni tey moom bu fi kenn def lu mu ngi wala di bëgg ci dëkk bi muy manifeste yooyu ñuy dégg ñuy wax naan dañ ko fay def sëñ bi daa joxe ndigal ñu woote fii ci Baye faal bi sëriñ bi jox sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou Fall ndigal mu ñëw wax ci turu sëriñ euh, am ni ci maanaam jox ñëpp ndigal rek ñu génn dugg ci dëkk bi maanaam lépp loo xam ne gis nañ ko te neexul seen dëkk bi rawat naa ñoo xam ne dañuy manifester ñu jëflante ak ñoom ci ni nga xamante ni moom la gën a waree ba nga xamante ni lii nga xamante ni ñu ngi koy def muy ay taaliponoog ay ñaxtoog yuutu ak lépp lu yelloowul ci dëkk bi rawat naa ak manifester ñu def maanaam ñu ñu dakkal ko te mu bañ a fi amati ba fit gis ngeen ko Baye Fall yaa ngi nii dañuy fas yéene oto yi maanaam lépp loo xamante ni maanaam matuwaay la tamit jël nañ ko waaw kon mi ngi nii gis ngeen ko ñëpp ñu ngi nii waaw dañoo bëgg fas yéene maanaam dugg ci oto yi sëriñ bi jiitu sëriñ Saliou Fall bu ko defee ñu ànd ak ñëpp waaw dugg ci dëkk bi fépp koo xamante ni nit maanaam gis nañ ko fa rek muy def lu yàlla wala dëkk ba ñu jëflanteeg moom ci ni ñu war a jëflanteeg moom incha allah rabbi ba li nga xamante moom la sëñ bi bëgg ci dëkk bi muy am ni mu ni ko bëgg incha allah te mu sax dàkk nag sëñ daam soodaa gi nii mooy jiita liggéey bi waaw sëñ daam soodaa ngi nii mooy mooy jiite liggéeyu sàmm war mooy Tuubaa yi kon nag waa ñu ngi koy ñu koy seere mbokk taal bi yëpp waa kay liggéey baa ngi noonu sëñ bi mooy jiitu maanaam sëñ Saliou Fall ko defee maanaam ñëpp topp ci ci ginnaawam ñu ñu ñu ànd ak moom ci dëkk bi dugg ci dëkk bi waaw jël nañ matuwaay yëpp nag waaw liy wax gars yi naan luñ ci bañul bañuñu ko si ñu nit luñ ko si luñ ci bañul rek bañuñ si waaw sëñ bi nee na képp ku yëg ni Baye Fall nga foo mën a nekk ci àdduna nga génn jàppale leen ci liggéey boobu kon nag ñu ngi fii ci Baye fal bi ci ndigalu Serigne Mountakha ci mu jaarale ko ci Serigne Amdi Modou Mbende Fall mu jaarale ko ci ay euh, mbokkam di maam Cheikh waa kër maam Cheikh Fall ak mbokk taalibe Baye Fall yëpp rek ñu ngi nii fas yéene départ dugg ci dëkk bi. waaw lépp loo xamante ne neexul sëriñ bi ci dëkk bi fas ñu ko fay dindi insha allah rabbi kon nag ñi ngi ñaan ñëpp ñu bëgg seen bopp bëgg jàmm maanaam bëgg li nga xamante ne mooy sëriñ Tuubaa gis na sëñ baa ngi noonu jiitu ñu ciy ànd ñun nag en tant que kuréel maanaam kuréel murit international ànd ak kuréel murit maanaam Touba xarsala taala ak maanaam ñëpp ñi nga xamante ni ñooy mbokki taalibe yi ñu ngi lancé benn appel bu solennel te ni na ni ñi bëgg jàmm sëñ bi na nit ñi bëgg jàmm ngir jëmmi sëñ Touba Touba dëkkub jàmbur la lim fi bëgg nañ ko fi bëgg la te lim fi bëgg nag moom la ñëpp war a bëgg muy jaamu yàlla sax ci sunna si yonent bi sallallahu taala wa sallam loolu doolu la fi bëri bëgg waram bëgg léegi nag magum jëmm liggéey liggéey ba pare ay xale ak i ndaw ak ñu kenn xamul ñëw bëgg nag liggéey bu mag liggéey ay ati ati ati ati at ñu bëgg koo yàq ci te mënuñu ko waaw bi ko feeñal loolu moom seen bi du lu kenn xam kon nag ñu ci soññewaat na nit ñi ñëpp bàgg na nit ñi bëgg jàmm ngir jëmmi seen tuwaar na nit bëgg jàmm ku ku dul jullit kuy murit ku dul xam nga ni lii c'est un combat légitime ndax am na dëkk yoo xamante ni baaxoo nañ leen ñu xam leen ci àdduna bi ñu am ay statut spécial dëkk yooyu lépp loo xamante ni borom dëkk boobu bëgg ko fa kenn du ko fa def kon nag Touba ci dëkk yooyu la boobu Touba dafa am statut spécial Touba nag tuubaay jullit yëpp la tuubaa nag tuubaay maanaam képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maanaam ci tuubaa nga bokk kon nag nañ sàmmalee sëriñ bi dëkk bi ndax moom ala kulli xaal sunu borom sàmmal na ko ndax moo wax tuubaa xar sax la taala kon lu kenn du sikki sàkkante am la waaye nag ñun nañ ci bay suñu waar nañ ci bay suñu waar bu baax a baax a baax kon nag gis ngeen ko waaw dafa mel ni sëriñ sëñ Cheikh Ndigal kon ñëw na gis ngeen ko waaw moom mooy dugg si nii di ñëw ci liggéey bi waaw waaw waaw waaw